immeuble bi nga xamante ni aussi effondré wu na euh, immeuble boobu euh, c'est-à-dire signalé woon nañ ko ñu bëri jàpp ni mbir mi dafa am négligence effectivement donc comme ni nga waxee dañu commencé di gis ni Dakar am na ay euh, dëkkuwaay ay immeuble yoo xam ne day màbb muy effondrement parce que ça menace ruine loolu amoon na marché Gueule Tapée yàggul mu daal di amaat tey liberté 6 juróom benn nit ñàkk ci seen bakkan bon kenn ki sax am na benn école bu ma nekk duma ba may bañ a def foofu étudiante la fa donc juróom-benn léegi loolu li koy waral mooy négligence am na ci certes mais aussi c' est parce que problème local terre yi jël lu ko en charge. Mhm. c' est vrai que les gens disent mais comme avertir nañu nag appliqué. a daal ñu xam mais on nekk ci day locataire kër gi fekk ko fa borom kër gi nekk ko fa moom il paraît fa la dëkkoon. nous on est en train de mener des enquêtes borom kër gi fa la dëkkoon mais bi nga xamee ni kër gi day màbb dafa dem les gens disent même la dem am na ñu ni aussi waxoon na leen ko mais waxoon na leen ko day ànd ak jëf état aussi j'ai def na benn communiqué ñun en tant que association de locataires ñu ni na état bi répertorier recenser kër yi nekk Dakar ak moo bëri bëri na lool yi nga xam dañ war a daanu Ah, mais mais def nañu mais def ministre de l'urbanisme def na ko. def na ko il y a deux ans def nañu enquête. mais ils appliquent waaw mais ils mais ci biir application ñun en tant qu'association de locataires nous nous proposons qu'on réquisitionne des parce que en France soo xoolee déclaration de politique générale bi le premier ministre mi ngi wax naan pour prendre en charge la question des sans-abri ñoom il est arrivé que ñu réquisitionner ay bâtiments mais l'État n'a qu'à réquisitionner des bâtiments suñu gisee parce que nit ñi aussi mun nekk ci mbedd mi mën na menacer mais da nga fay dee. parce que amoo faneen pour lui. mais mais su fekkee état dafa Félix état su fekkee dafa réquisitionné ay bâtiment tamit ñi nga xamante ne ñoo nekk si biir bâtiment yi tamit fan nga leen di yóbbu su fekkee état amul fu leen yóbbu tamit loolu tamit ça pose problème. waaw d' accord vrai mais man daal li gën a am solo parce que euh, bakkan moo ëpp solo lépp. Mm. li gën a am solo bâtiment boo xam ne leen na leen day daanu wóorut ak moo bëri Dakar que l' état agisse ñu jël nekk génne leen soit même su fekkee sax dañ leen di génne bon gis naan fii. inondation bi mu amee Ablaye Wade solution yi mu jëloon ci dem créer ay zone de recasement nangam nangam et cetera et cetera donc mais bàyyi nit ñi aussi ñu nekk ci ay batiment bâtiment yi di mab bu ñuy dee vraiment et puis ça n'émeut pas les gens quoi parce que même les télévisions vous m'excusez un peu j'ai suivi parce que man je m'intéresse au détail nombre de morts yi duñ ko génnee ils parlent même de blessés yi saa benn télévision ils ont dit douze le l'un des blessés a été en charge il est dans une situation stable mais ils n'ont pas parlé de mort il faut que tu ah bien sûr non oui oui les morts ils n'en parlent pas cest dire que si six Sénégalais meurent ça n'émeut personne mais quand dans un autre pays deux personnes mbaa kenn nit faatu fa mais ça émeut tout le monde voilà bon man su ma la ñëw moom mooy yéen en tant qu'association la moo si seen bon yaa ngi critiquer et tout ba moom critique yomb na su fekkee jiyee dafa am boobu recense étape dafa war a recenser ñi nga xamante ni ñoom ñooy loué mais est problème bi nekkul ne bon déjà yéen seen rôle na la est-ce que nekkul problème bi moom mooy recenser le nombre de bailleurs bi nga xam ne kenn xamul nombre bi ñaata la Sénégal est-ce que loolu warul nekk seen rôle seen taxawaay si si mbir mi. pour bu ko defee ñu ñu prévenir. bu savez xam nga Sénégal dafa benn problème bu ñu am on a problème de statistique les gens te disent que eh, quarante Dakar soo xoolee quarante pour cent. il sont pas propriétaires les 60 pour cent ñoo nekk des propriétaires chiffre boobu man dama ko il y a plus de locataires que de que de propriétaires à Dakar dama gëm loolu benn deuxièmement yaa ngi wax daal ñun notre rôle n'est pas de recenser les bâtiments qui menacent ruine il y a des structures yoo xam ne état moom la fa par exemple les gens par parlent pas de la direction de la protection civile mm-hmm. qui est interpellée on ne peut pas créer une direction vous savez ce direction une nationale logé au ministère de l' intérieur xam nga lan mooy rôle am j'ai fait des recherches si cette direction jour bi nga xam ne moom lañ jagale protection civile nga dem ci benn plage def benn manifestation mais loolu ça n'a pas de sens aujourd'hui BRT bi il devait communiquer cette direction doit prévenir les citoyens des dangers même la direction là am na beneen rôle bu muy jouer mooy les installations les biens publics la protection moo ko yor BRT bi ci la bokk mais tey ñoom ñoo war a recenser xool immeuble boo xam ne koñ bu nekk immeuble bi baaxul fii nii waru fee dëkk ñu fexe agir évacuer ses locataires on va trouver peut-être une solution ñu évacuer leen génne leen fa loolu daf ko ñu état moo war a def loolu mais ñun rôle bi nu man mooy rôle de veille et d'alerte la ñuy def yenn saa ñu gis bâtiment bu ñu signalé ñu dem ci maire bi wax ko mbaa ñu dem faneen wax ko loolu lan man mais aussi les citoyens tamit nañ jël euh, nan am benn prise de conscience bi bakkan kenn mënu ko wecc ak leneen kenn mënu ko jënd bâtiment bii dama fay dëkk wóorul mais ma jóge fa. mais mais au moment dem damay damay mais loolu nga fanaan xanaa ko mu ni ci mbedd léegi lu on a pas l'habitude nga fanaan ci mbedd moo ko gën su la leeree mbedd mën ngaa fanaan foo xam ni yow peut-être que ta sécurité n'est pas trop trop menacée parce que on de des sans-abri en Europe mais moo gën nga nekk ci bâtiment boo xam ne mën naa màbb très bien sa bakkan des